ayo di jumtukaay bii tax ngeen mën di woote Sénégal ni mu leen neexee ci njëg yu xéewale moo leen di may seen émission Modou Modou ci tuuba Argentine TV. salaamaaleykum euh, mbokk yi ànd ak Touba Argentine TV ñi nga am mbégte tey am gan goo xam ne yaakaar naa gën a xam ni ñoo nekk Sénégal yaakaar naa bu ngeen ko gisee da ngeen ko miin mu doon koo xam ni euh, liggéey na lu bari ci groupe bii di groupe théâtre bu Daaray Kocc Ndeye Sy at yu bari nag gis nañu ni nekkul di def théâtre foofu ci Sénégal. mbokk yu bari ñu ngi yónnee di laaj ci lu mu nekk tey nag moom la ñu indi ngir rek uh, bëgg xam ci lan la dee Ndeye Touba Argentine waaw sëñ Gora maa ngi leen di fay nuyoo ginnaaw ba ma waxee salaamaaleykum sant yàlla julli ci yonant bi sallallahu taala alayhi sant sama ñaari waajur uh, maa ngi leen di fay nuyoo bu baax a baax. mu lay présenté maa ngi lay wax ne la ñu bari ñu ngi lay laaj xamuñu ci li nga nekk groupe bi la ñu leen daal ay ay at yu bari gisuñu la ñu ngi laaj ana Ndeye. waaw man maa ngi fii maa ngi fii ci Argentine ne nekk fi nag ak sama boroom kër loolu moo tax waaye terewul toujours sama xel mi ngi ci aar bi ndax xam nga li ñuy wax rekk xale mënul jooy lu mu xamul loo doonul nag taalibeem defe naa doo doon sëriñam donc métier aar ci sama deret la nekk donc mënu cee génn. dina yaatu waaye balay booba dañuy uh, juboo xam kan mooy ndey si dëgg mën nañu dellu ci sa nataal kan mooy ndey si waaw kan mooy ndey si ndey si mu ngi nii Sénégal laa dëkk falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee ba yàlla def aussi ma am sama borom kër ànd ak moom ñëw fii ci Argentine nekk fii ak sama boroom kër man sama boroom kër moo tax ma tukki ñëw fii mais man jóguma woon pour ñëw di immigré. mais kan moo si daañu soxla xam fan nga gane jamono fi nga jot jaar ci wàllu njàng yan formation nga def loolu it mën nañu ci yaatal tuuti. waaw man maa ngi gane jamono Dakar fu ñuy wax Grand Dakar Grand Dakar laa juddoo maa ngi jàngee école Salvelan Salvelan de laa jàngee. sori na nekk nga ko xam ne nga ci diplôme bu sori wala. xaaruma ko fa nag ndax damaa léejoon xaaruma ko fa sem de bàyyi jàng comme la ma ko waxee ca théâtre ba looloo am de sem de bàyyee jàng waaw. Euh, ñu gis leen nga nekk ci aax di théâtre loola ci marqué ba tax nga dugg ci comme ça. waaw théâtre bi dama amoon sama maam joo xam ne yal na ko yàlla yërëm sama maam Faat Fall Tafa Diop bu daaray Kocc moo ma yóbbu daaray moo tax ma gën a dem daaray Kocc euh, Tafa moo tax ma dem gën a dem daaray Kocc ndax moo daan ñëw foofu ci sama maam sama maam nag moo ma bàyyi ma théâtre mais mosul woon sama yaay ba may doog a théâtre neexu ko woon bëgguma woon bàyyi. Ah, jékki-jékki rek xool la yóbbu la ci euh, daaray Kocc da nga nekkoon koo xam daa nga fooye théâtre wala it lan nga doon wane ci sa ndaw ba tax mu xamee la ci théâtre waaw xam nga toujours en général day am troupe xale ci ay koñ ma nekkoon nag ci troupe boo xam ne suñu koñ boobu ñëw nañ jóge nañ Grand Dakar ñëw golf yàlla defoon nag troupe ba gënoon naa caa ràññeeku torop may dem nag après ci laa xam daaray Kocc di fa dem vraiment suñu directeur yal na ko yàlla yërëm tey Cheikh Tidiane Diop gis ma ma fay ñëw noonu ma bokk ci xale yi ko marqué woon nag. deuxième génération bi nga xam ne marqué woon nañ ko wax dëgg yàlla mu jàppale ma nag ci aar bi lu bari sama directeur boobu maam Matari Pend Jigal soxna yaayu gàmm faal yal na gimee àjjana. mën nañu dellu tuuti ci bi nga door a dugg ndax yomboon na ci yow bu nga ñëwee fekk fa ay kilifa di nga ko tuddee ñoom aas ak ñu ñu demee noonu rôle bi nga doon sa soo sa premièrement mën nga nettali na nga ko defoon. waaw bi may doog ñëw nag xaw la yomb ndax lu baax yombul ndax Daaray Kocc dañu nekk ñoo xamante ne nii. presque bu ñu def comédie dara ko ci ku leen xam xam ne ci drame nga leen xam euh, li may wax àdduna may seetaan Sénégal bu ñuy wax théâtre daaray Kocc moo tax nekkul nag courage ci jëmale sa kanam mu dëll de non daaray Kocc tey ngay seetaan di dund loo xam ne day mel ni yaa ngi koy dund ci sa biir kër saa yoo seetaanee théâtre daaray Kocc di ci gis sa bopp. foog am ku ci gis boppam tey soo seetaanee macha allah ay xaanju bi muy doog a génn defe naa taxoon na jigéen ñu bëri daf leen marqué ci seen vie ndax jigéen amul lu dul boppam nga jóge loolu barki démb moo njaay li ci portable ay moo du tey tukkikat lañ xam nañ la ci nekk yooyu yëpp boo koy seetaan day nekk yoo xamante ne ay réalité yoo xam ne danga koy dund ay lappis lappax xam nga mu nekk yoo xamante ne tey ay drame la yoo xamante ne ndax théâtre bañ koy def suñu dëkk pour yar la yar maanaam ay éducation la ñuy bëgg joxe tey mënoon nga toog ak sa yaay ak sa papa di seetaan théâtre doo ci gis lu salte doo ci gis loo xam ne boo gëstoo xool say waajur ruus ndax ñun Sénégal dañu nampatal ci diine yar ñu ci diine kon am na yoo xam ne même bu fekkente ne dañoo moderniser affaire yi dëgg la. mais am na loo xamante ne tey théâtre bañ koy wax yeete la te defe naa ku yeete waroo nelaw su ma juumul. ci ñëw lu yaatu ñu dellu ci rôle bi nga naan suyee ci euh, naka nga koy dunde bu ñu xoolee tey par exemple bu mu waxee moom bu ñu tuddee Baye Ely tey mën na wax ni xel dafay dem ci nii kooku dafa bëgg ginaar rôle bi xawoon na salte ci li ñu koy gisee ak it euh, askan bi nga xam ne moom ngay dund ndax dañuy jàpp ni ndey si moom daan suyee ci rôle bi noonu la mel noonu la mel waa wala déet. waaw laaj nga ma question bu ma neex sama rôle yooyu may joué dama ci fier mu neex ma parce que àdduna dafa yàggul noo tànn ma ko ñun daaray Kocc yàlla dafa defoon cheikh dalay xool bu la xoolee rek xam na lan la la war a jox man nag d'habitude yàlla def na loo xamante ne du ma répété théâtre yi nga gis ci àdduna yépp ma koy joué li may wax li may kii par inspiration lay ñëwee mënuma répéter soo ma joxee scénario bi sax damay jaxasoo nañ ma wax ne rek lii mooy histoire bi après man maay demal sama bopp euh, yàlla def aussi rôle yooyu may joué dañ ma koy jox mais dama ci fiere kontaan ci xam nga tey bëri na àdduna bi loo xamante ne naa fekk baaxul yàlla rëbb na ko yee fitna te tey bëri na ñoo xamante ne nii dañuy boole ay nit di jaxase ay xol te loolu baaxul. tey nga jaxase fii jaxase fii nit ñi nekk ci fitna mais ku defal nit ñi jàmm yàlla du la may jàmm mu yéex mu gaaw sa kaw rek lay këpp donc euh, rôle yooyu may def xam nga ne toujours gis nga fi may mujj jaxase fii mélange fii dangay dem ba lépp après sa kaw yow lay këppwaat donc mooy li olof di wax yéene néeg la borom ma cay fanaan. wi ndax nekkul ni daañu dañu sentir loolu noonu nga mel par exemple dama diglu Assis euh, mooy seex. mu wax ni maanaam bu ndoxatal bi muy def sumbulu tax na am na ñoo xam ne sax dañ koy bañ loolu yow après naka nga koy dundee ak askan wi. waaw nu may gisee loolu ñoom sumbulu. ni ah, waaw ni ñuy gisee xam nga ñëpp bokkuñu gis-gis. bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. am na ñoo xam ne bu ñu seetaanee ndey si dinañ xam ne lii réellement théâtre la bu ndey si di def rek ndey bi sol mbubu aar toog ci studio bi di def liggéeyam ak ndey bi ñëw këram. doon jeeg bu toog ci këram uuf njabootam du benn. ñu fàttali mbokk yi yéen a ngi ànd ak Touba Argentine TV suñu gan mooy ndey sii euh, ñu ñëw ci Daara Kocc yaa ngi koy tudd ci théâtre yu am solo yi mu doon def mais fi bu ñu seetloo dañu gis ni dafa dee ak it lu solo yi mu def daanaka fi ne boo xoolee tey lu jëm ci comédien faire reeloo moo gën dox Sénégal jàngat bi ci théâtre du Sénégal ñu ko ñu ngi koy seetloo fi ne nii. waaw Daara Kocc non deewul. tey théâtre yi nga xam ne ñoo gën a jëm ci dafay affaire comédien yooyu la ñu gën a bàyyi xel nag ci wax dëgg yàlla seen théâtre yi nag. waaw xam nga lan moo tax xam nga tey adduna day dox te garab ci kaw lay fekkante man damay sant yàlla tey may théâtre di théâtre te beneen génération tey ñëw fekk ma ci li ma doon def def lu gën a neex li may def artiste du soxor ndaanaan du iñaan non tey jii. nit ñi àdduna bi dañ toll foo xam ne nit ñi dañ bëri stress dañu bëri ay problème jamono toll foofu li ñuy wax ne problème yi ci bopp yi bu wàccoon ci tànk yi kenn du dox ñëppay paralysé donc vraiment nit ñi dañu soxla ñu leen di reeloo di dindi seeni stress daaray Kocc nag yàlla dafa def presque majeure partie bi yëpp drame la ñu xam ndax ci lan ñu nàmpantal cheikh presque boo seetaanee daaray Kocc ñi fa daan def comédie ñu njëkk ña la ay Babou Faye ay Mokhroja ay Baye Pël mais defe naa boo seetee après loolu presque ñëpp drame la ñu xam mais ñii ñëw tey ku mel ni Cheikh Gueye mooy Saneex sama càmmiñ ku mel ni tey Serigne Ngañ sama xarit lool sax sama càmmiñ di sama xarit ñoom dañuy comédie li tax ñuy comédie nag dañuy reeloo nit ñi man nit may gis nii artiste day am artiste est que xam nga man Sénégal yëpp ñaari artiste mooy fay daaneel gañ bu Thiès bu ñoom Saneex gañ su ma ko seetaanee damay bég ndax dafa naturel maanaam naturel am moo ma neex li muy def du ko sentir ak Serigne Ngagne boo koy seetaan da ngay xam ne kii artiste la parce que dafa naturel li muy def dafa naturel ci moom donc dama leen di sentir su ma leen di seetaan donc li ñuy def neex ma trop parce que vraiment euh, bokk na ci li ma marqué ndax man su ma leen di seetaan sax samay stress day dañ donc kuy def lu neex nag. ndaanaan du iñaan da ngay d'accord ni lii dafa neex lii moo tolloog bi génération mais terewul ñun bu ñu ñëwee ak li ñuy def maanaam ñun drame bi ñuy def ak comédie bokkul mu ngi mel ni kii jëm Patte d'Oie kii jëm pikin boo leen boolee yoon bu ñu demee ba croisement Cambérène noo def ñu séparé mais artistes yëpp benn lañ réeroowuñ ci dara ndax dañuy daje ci plateau yi di kaf di foo di ree ku xewle sa morom wuy si la donc ñun ñëpp benn lañ. mu ñëw ci leneen lu la ñel muy euh, fi na gis nañ ni tey faatu faatu nga gën a jege ci nekk artiste comme di def théâtre wala dara euh, tey loolu naka nga ko dundee ak théâtre bi nga xam ne miinoon na ci bégal waa Sénégal tey nag nga wan ko ginnaaw nekk ci réew gu sori daanaka Sénégal mën naa wax ni vacance moom moo la fay yóbbu tey naka ngay dundee loolu. waaw faatu faatu <laughs> jege na ma jegewu dama toog yor sama borom kër tabaar fakkaat la fonk sama sang bi torop nag muy jëkkër gën ci jëkkër yi te jafe ci lool nag ndax jëkkër joo xamante ne fattu la libéré la bàyyi la ak sa esprit mu libre yombul jabaru artiste yomb la yore lu tax yomb ñoo yore jot yi du bari ñu ñuy soxla day bari ah, donc soo amee jëkkër ju la comprendre jàppale la da ngay sant yàlla euh, sant sa borom kër ndax jigéen amul lu dul borom këram taaru jigéen sëy te man dama gëm sëy euh, ma nekk fii nag ak sama jëkkër ñëw ci dëkk bi li ma fi fekk bokk na ci bëgg jàppale sama jëkkër wax dëgg yàlla bëgguma mu gën maa gore ndax bu xëyee lu mu am daw indil ma kon war naa lu ma daw ñëw jàppale ko lii moo ma dugal ci faatu faatu mais terewul toujours damay toog fii di dégganteeg sama directeur Pape Demba ñu ngi déggante ba bi may joué ji ay gaaf juguma woon pour loolu de fii laa toog ñu woolu ma rôle boobu presque mën naa la ne théâtre boobu bind nañ ko un moom mi may dégg dina ma seetaan àdduna ak may seetaan ku ñu jox rôle bi doo ko réussir biir daaray ko ku ñu ko jox rôle bi doo ko réussir ñu mujj teg scénario bi Pape Demba ne leen li kenn rek laa xam ne moo mën a ñëw def ko muy ndey si bi ma ko waxee ma ne ko waa baax na dinaa ñëw Sénégal. bi ma yàlla yóbboo boobu maa ngi nekk sama jigéenu wérul sax laa ci nekk bi ma yàlla yóbboo dama ñëw dem bi ma ñëwee mu wax ma scénario bi daf ma ko wax rek ma ree parce que xam naa dama koy def ni ndoxum naan te am naa yaakaar ne bi ma ko joué moom am na ci satisfaction bu mag. bu fekkee dégg nañu la ba nii nii yaa ngi ci biir Daaray Kocc bu fekkee am na role boo xam ne yow lañ ci sentir it da ngay dem suyee ko comme ça. waaw Daaray Kocc noonu génération la. tey ñun avant ñu woon ñëw ñoom sëyna bu ñaa ñooñu ñoo fa nekkoon nekk génération boobu après ñu ñëw ñu nag ñoom day xadi ñun bu ñu fa paasee rek am na beneen génération bu fa nekk yàlla ko ci maanaam ni ma la ko mën a waxee école la ñoom Mansour Mbaye ma jaaga ñii ngay gis ñu nekk ci wiiri wiiri bi ay ñoom ma njoon tasuñu de tey ku ci daaree ko ci soxla woon da ngay dem def li nga war a def demaat toog. daaray Kocc école la école nag defe naa day tëj ñu jël vacances mais du du du daaray Kocc du troupe buy nax saay non non non. ñu des ak euh, fi nga nekk Argentine ndax yaa ngi xalaat doxal fi théâtre bu ñu jëlee per exemple ci euh, ñenn ñi nga xam ne ñoo ngi bokkal métier mi seen génn tukki ñu seetloo seexu naa bi dem Espagne wante ne yàggu fa waaye def nay pexe ba jëm fa taxaw ay théâtre yoo xam ne am na solo mën nañu jàpp Yamar Mané bi nekk defe naa mi ngi moom gis nañu liggéey ba solo bi. def nga temps fii te gisuñu ay théâtre yoo xam ne ñu fi jóge loolu sa projet la ngi xalaat wala déet. waaw maa ngi ciy waxtaan nag sax nag yàlla xam na ne ñu bëri ñu ma koy proposé di ma ko laaj mais xam nga Europe relation bi ñu am ak Sénégal bokkul ak Amérique latine bi fii dafa sori. Euh, yàgg guñ fi du doon yàgg sax parce que mën nga ne cëpp rek ndax lii sa métier ci sa deret lay ne li ma la wax aar ci suñu deret la nekk donc du loolu xëy na tey boo demoon Europe. artistes yu baree nga fa pour nga ressembler ay artistes def loo leen dara day yomb mais fii talent man bi may soxla tey su ma doon war a tourner film dinaa am problème parce que sama drame bi ma soxla talaa bi ma soxla duma ko am mën na am sax am na fi ay artistes bu ñàkk mais li may soxla man santiir ko gisaguma ko fii ñu ma ci mën a jàppale. teg tekkaralu léegi. mais su dul woon loolu. dinaa jéem a def fii benn affaire ñu génne ko ñu xam ne nday si mu ngi Argentine mais talent yi ma soxla ñoo nekkul fii. ñu dellu ci loo xam ne mas dégg nga di ko annoncé ci yi muy euh, euh, maanaam desal ginnaaw gi nga xam ne état bu Sénégal desal na ko ginnaaw artiste foofu ci Sénégal ñàkk ki fonk tudd nañu sax seen mbokk boo xam ne mi ngi ci daara Kocc ba nii nii mi ci feebar te ba nii dafa manqué ay jàppale lan ngay lancé appel Ndeye Khady la defe naa. Ndeye Khady ci daara Kocc waaw. war a def ndax àdduna moom day am ku jiitu rek am ku topp mais dama toogoon war fajiri def naa fa ñaari émission yoo xam ne benn bi Ablaye Wade moo fa nekkoon. li ma ko njëkk a jooytu mooy ministre de la culture la wax culture moo ko fa teg buñ koy fay ñun ñoo tax te lañ koy fay ñun suñu ñaq ngi ci donc artiste bu mu mën a doon dañ la war a nemmeeku ndax dañ ko liggéey suñu réew dañu liggéeyoon suñu réew ba am raaya raaya bi mooy lan man tey fu sénégalais nekk ci àdduna nag laa wax buñ la ne ndey rek xam nga ma soo ma xamul ci jëmm dinga ma xam ci image donc kon yàlla tere su ma tolloo ci tolof tolof sama réew dañ ma war a jàppale ndax tey fu sama image dem sama réew laa ko liggéeyal ndey xadi moomu ngay wax sama xarit sama doomu ndey def na def na ci aar lu nekk kon lan moo tax su tolloo diggante état Sénégal waru ko jàppale ñun waruñu feebar walla dara di ñaan ndimbal jaaduwul ndax tey boo yówee réewu nasaraan yi ñu nekk seeni artiste seen état dañ leen fonk teg leen ci kaw kon lan moo tax ñun suñu état Sénégal duñ defal loolu man damay laaj pour lan dañ ko méritoowul am dañ ko liggéeyul wala dañ ñu ko warul defal loolu laa waxoon. Sénégal léegi ku jóg euh, def théâtre ndax ñàkk gi xàmmee sax fi ne kan mooy artiste dëgg loolu taxul it du ñu mën a jàppale ñëpp daanaka fi ne Sénégal léegi ku jóg théâtre ni ma gisee. waaw war <laughs> a salaaj boobu moom foog ma ree doog laa tontu cin bokkul safin oto lu lu mu xat-xat nuyul ma sama yaay xaj na ci artiste bari bokkul ku mu neex mën ngaa jóg def théâtre mais am na ñoo xam ne bu ñu rombee rek ñu xam ne ñii kii mooy diw te kenn du la présenté mooy question bi ma la waxoon sànq rek kane man ndey si kenn duma présenté fu der bu ñuul nekk ci àdduna déedéet loolu mooy waa daaray Kocc ñun kenn dootuñu présenté àdduna eh, réew yi sax ñoom ñoo gën a fonk ñi nga xam ñoom ñooy artiste fii nii am nga fi relation ak ñenn ñoo xam ni it ñu ngi leen di jox gëdd comme ça reconnaître artiste boo xam ne fi ñëw immigré wala dara non wax dëgg yàlla nag fii moom à part bakañaa mi fi ñëw keroog rek tëgg si fii gisuma beneen artiste bu fiy ñëw mooy li ma lay wax rek ci Amérique latine bi te defe naa loolu Sénégal am na ci wàll bu rëy. yaa ngi présenté wu ci ñi nga xam ne nga bokk ak ñoom liggéey bi wala presse bi ak dara di leen wane leen vidéo yi kat maa ko doon def ñu lay bàyyi xel wala dara yaa ngi dox ci loolu. non dama duma ci sax nag wax ak ñoom ndax defe naa fii li ma fiy def mooy gàmmu am bi nga xamante ne nii tarixa Cheikhu Tidiane bi nga xam ne fa laa jokku. fa laa nekk mu am ma dem def reportage ak li nga xam ne mooy li may wax borom sëriñ bu mag bu julli ci géej gi suñu maam. ci benn scène scène bi sax ñuy defee kii muy Touba Sandine tey fa yaa ngi ci defee am solo. voilà muy loolu màggal am nga xam ne ñun fii Argentine dañuy dund loo xam ne dafa neex fii xam ne woo tijaan ak murit dañu boole këru diine yëpp def ko benn bu màggal amee tey tijaan yaa fay ëpp. bu laylatul xadri wala gàmmu amee murid yee fii ëpp ñu boole lépp def ko benn am fi njiit yu mot njiit kilifa yoo xamante ne fii tey tabaar fakkaar la macha allah laf cat mat nañ leen doon kon ñun fii dañoo def li suñu maam ji yal na fi yàgg te wér lool sëñ Sidi Matar wax kane bëggatul dégg ko séparé tarixa murid yoo tijaan laayeen ñëpp ndax gisagoo kenn ku jublu julli jublu sow ñu penku rek lañ def ayo allo allo ayo ayo moo leen doon may seen émission Modou moodou ci Touba Argentine TV ayo jumtukaay jokkoo la bu ñu leen jagleel yéen moodu moodu yi ngir fu ngeen mën di toll di mën di déggante ak waa Sénégal ci anam yu yomb te xéewale jëfandikoo leen ayo application bi ngay télécharger ci sa téléphone jot ci suñu liggéeykat yi ñu installé leen ko ayo jàppandi na ci Argentine boo ci soxla wol Abdourahmane numéro téléphone am 112 747 22 21 wala nga woo Gora Seck ci 223 305 01 27 wala La Plata nga woo Ndiaga Ka wala Ousseynou Fall 221 50 37 301 yéen ñi fare Cordoba te bëgg a jëfandikoo application bii di ayo wol son yu bu baax numéro téléphone am 351 801 23 95 yéen moodu moodu yi fare Brésil it fàttewuñu leen woo leen Omar Ndaw ci 119 869 482 96 ak application bii di ayo da ngay dégg jàmm di déggante ak say mbokk ci jàmm. Ayo. mbégte dikk na